alhamdulilah bisimilah wala yàlla eh, ñu dalal leen bu baax ci seen émission bi la di xalima bu ñëw nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy topp saa ci émission bi la di fii taataan na xam-xam tey ñu seeti borom xam-xam bu ñu ràññee bu baax ci franc parler bi comme ni ñu koy faral di waxee Cheikh Ibrahima Guèye doomu Saloum Jilé tey moom la ñu seet si ngir ñu waxtaanee ay ponk yu bëri ndax kat dëkk bi dafa lëmbee ak sëriñ suñu xamee à tort et travers fekk dañ leen di gis. mais kenn ku wax lu la neex ñii di dugg fële pour am buzz et cetera ponk yooyu la ñuy fas yéene waxtaanee cheikh bi di bàyyi ñun ñoo bokk internet yi. Euh, alhamdulilah asalaamaaleykum euh, ngi sant yàlla di julli sant bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm si Ahmad Tidiane Sirif radiyallahu anhu di ñaanal suñu wayjur yi yàlla euh, ñi nga xamante ni jiitu na yàlla xarale àjjana ñu fi des yàlla yàggal leen fi di nuyu xalifa généraux yi nga xamante ni ñu ngi fi. Eh, day ñaan yàlla yàlla may leen wér ak kattan eh, mission yi nga xamante ni ñu ngi si yàlla eggale ko fañ soxla salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Cheikh bi si nuyu Moussa Diouf teg yooyu tey nag damay directement ci nga xam ne mooy l' essentiel. sëriñ ñu ràññee ci dëkk bi. Mm-hmm. waaye nag bëri daf leen yomb ci milieu bi. Mm-hmm. ñenn ñi di guddee buzz nu ne façon bu ne. Mm-hmm. ñenn di dem ba taxali seen image ak yenn artistes yi ak yu ñu naan. sëriñ yi wut buzz si artistes yi la alhamdulilah yaakaar naa ne wax naa fi samay sorties yu bëri yi nga xamante ni si ñàkk valeur gi nga xamante ni sëriñ si ñàkk nañ ko valeur sax ñi woote woon ay sëriñ lañ ñàkk valeur gi ñu def. Euh, bokk na ci si nit ki nga xamante ni moom moo daan la soxla. di ñëw di am benn temps bi pour gis la sax day nekk problème. Mm. te yow yaay dem bay wëri nit kooku noonu pour rek euh, nit ñi xam ne. diw kat mu ngi dem si diw diw ko defal nangam nangam loolu amul importance te itam yu buur sëriñ fenn mm. sëriñ day am valeur mm. sëriñ day am dignité day am personnalité yi nga yooyu yëpp si sëriñ lañ si sëriñ lañ ko war a gis mm. waruñ ko séentoo feneen fu dul si sëriñ valeur euh, euh, tey bokk na ci nga xam li nga doon yow nga xam yow sa nga xam sa bopp nga xam yow yaay kan li nga doon sonnee nga xam ne da ko sonnee si daara danga nga ko sonnee si ay gëstu. Mm-hmm. nga bañ koo wili pande si mbedd. Mm-hmm. yaa ngi dégg nga xool say ànd. Mm-hmm. ñan la ñan ñooy say ànd. bul xool ne diw kii kat star la si dëkk bi. wala kii nit ñi xam nañ ko xaaral ma koy fréquenté pour nit ñi xam ma. gis nga li tax nit ñi di la xam yow yaa koy liggéey. ni nga koy liggéeyee nag danga koy liggéey si njub. ak si sell gu mat sëkk ku la gis naw la. su boobaa déedéet du dooleel caaxaan du dooleel ci caaxaan sax. waaw du dooleel caaxaan te di dooleel du dooleel ki ceexam am na fenn fu nga xam ne suñ la gis rek ngay fréquenté ñeneen bu yàggee sa valeur day wàcc ku la joxoon cër benn doot dootu la ko jox yaa ngi dégg waaye nag bu ñu la gisee ngay ànd ak sa ànd maanaam bay day ànd moromi bayam gaynde ànd moromi gayndeem fokkat na ànd fokkat sëriñ bi demal nga ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy say naataango si mbir moom noonu ngeen di dimbalante si wàllu secret yi nga xamante ni man ngeen ci dimbalante pour mën a faj xal euh, soxlaay jaami yàlla yi yaa ngi dégg bu njëkk sëriñ taalibe taalibe lay àndat moromam taalibe lay wëri ni mu wëree moromam taalibe nag bu demee ñoom ñaar dañu essencementé kenn ku nekk di dimbala moromam sa am su ko boobaa da nga gis ne euh, soxla bu la mën a tawatal rek dinañ ci mën a dimbalante dégg nga suñ ko sotee rek yàlla mën na leen ci dimbale bañ xam ci ndam. beneen ponk bu nga xamante ni ñemeeku nañ ko ci dëkk bi. mais saa su événement amee rek sëriñ si dafay mel ni dañoo ji dañuy dañuy dañuy xaar. Mhm. kenn ku si nekk di génn di wax. Mhm. suba léegi xew ginnaaw suba léegi xew. suba mhm. lii ma ci am lii ma ci am. yenn saa yi ñenn ñi génn wax mu dajanteeloon. moom moo am ñenn saa yenn ñi génn. mu wax safaan lool. façon yu mel noonu ak contradiction yi am si sëriñ euh, si. lu ci ëpp wut bës moom la ñu bëgg. ak tatane waaye bari nañu xam dara si liy xew suba te duñ ko wax yow tey Saalum gi nga dëkk xam nga fa ay mag ay kilifa yu nga xam ne tey suñ la waxoon na la gisal naa la suba nga def nangam nangam da nga koy gëm te da xam ne lu wér la waaye yu mel noonu tey ñoom suñ ko gisee du ne dañuy taxaw di ko wax si média wala di taxaw di si insister di si kii di si wut bës déedéet dañ koy wax ñenn ñu nga xamante ni seen jegeñaale lañ suñu amee ay sarax yu ñu siy def ñu jël seen euh, moyen bopp daf ko fekkee lu nga xamante ni dafa jëm si wàllu état ñuy wax si ñi ak ñu si a waxat dugg si média bi dañ ciy wax ak ñu si a si état su boobaa ñu génnee daf sarax yi a def pour dëkk mais tey bu fekkee dëkk bi nga xamante ni yow si bi nga bokk gis nga ay gàllankoor yi nga xamante ni lii lii war a ñëw ci dëkk bi yow te am nga moyen bi nga xamante ni war ngaa mën a def sarax yooyu noonu lan nga ci wutee bës wala lan nga ci wooyee ay nit ñu nga xamante pour ñu ñëw seet si la pour def sarax boobu déedéet waxal ak ñi ngi ci war a waxaat yaa ngi dégg soo amul moyen wax si ak ñu si war a waxat moo fekkee état la wax si ak état bu fekkee ne tey benn euh, journaliste léegi bu nga xam ne dañ ko gisal nangam nangam xoolal ay jege ñaaleem nga ne leen nangam nangam mais bul taxaw si internet wala si télévision ne diw nangam bu la bu même bu affaire bi nekkee dëgg si du la parce que parce que parce que lu tax du la mooy tey dafa bëri tey euh, sëriñ yu nekk si biir internet bi mm-hmm. te li leen dugal si internet duwul lenn lu rut wut bës. ak nit ñi xam leen internet mën nga ci jëlee lu baax mën nga ci jëlee lu bon. Mm. tey du xut ne sëriñ si nekk si internet bi ñëpp a bon wala sëriñ ci nekk si internet bi ñëpp ay dóor déedéet am nañu si nekk ñu baax ñu nga xamante ni ñu ngi dimbalante ak nit ñi. Mm. te yow xam nga ci dara. Mm. yaa ngi dégg parce que euh, du tey nga commencé di jël sëriñ. di ko dugal sa biir site. yaa ngi dégg ñu baax xam nga leen yaa ngi leen téye ñi nga xamante dem nga ba reconnaître ne. ay yàqkat lañ te dañu yàqal internet maanaam site internet yi nga xamante ni sax dañu jël sëriñ yooyu dañ leen di yàqal dem ngeen ba commencé di comprendre ba leen di écarter. yaa ngi dégg kon euh, li may wax rek mooy ba tey day dellusiwaat si côté valeur. yow mi nga xamante ni yaa ngi woote ne man ab sëriñ laa ab dimbalekat laa euh, fexeel li ngay woote yoo mu nekk ci yow. fexeel li nga gisal nit ki nga taxaw ak moom nga wax ko ko waaye bul taxaw si internet na nangam nangam ñuy gis bëri na. fexe ba valeur ñuy xaar ci sëriñ yëpp nekk ci ñoom. waaw loolu rek moo ci am importance. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi loolu lu am solo la mais yow euh, sànq dama la dégg ci événement yi comme ni ñu koy waxee yenn saa yi gars yi wax lu nga xamee ndax noonu la wala génn wax. Mm-hmm. yow souvent duñ la nemeeku ngay génn di wax ci yenn événement yeeg. Mm-hmm. danga doon ah. seet wala. déedéet euh, man mën naa teg sama loxo. yëkkati sama loxo ci kaw. ne amul benn sëriñ boo xamante ni tey jamono bi ñu toll nii dàq nga maa set déedéet. kenn amul si kenn nit nga xamante ni yaa ngi wax si mbir yooyu nga nekk nit ku ma dàqa seet dàqoo maa seet te itam gënoo maa xam luy ñëw waaye man dama bëgg sama image dama bëgg personnalité bi nga xamante ni yàlla dénk na ma ko dama bëgg dignité bi nga xamante ni yàlla dénk na ma ko. bëgguma ko ñàkk. dégg nga parce que tey am na ku ma respecté ku nga xamante ne su ma déggoon ma wax si yenn yi suma respecté parce que bu yàggee daf may classé si ñooñu moo tax toujours damay éviter eh, di wax si yenn yi nga xamante ne ay détails la. du ma ci duggoo. su ma gisee dara si équipe nationale wala ma gis dara si benn mbër wala nangam. damay toog ak samay nit ñi may wax waxtaanat ma wax ci. su ma ci waxee pare naa ci. dootuma si nekk sax di topp mbir moom bis day jotee ñu ne ma ah, de mos ngaa wax naa a def mos yoon attention loolu mag ñu ñu yar lañu dem dundee dañu koy gis dara xëy wax ko daf si ay sarax sàkk ay sarax daf si ay ñaan oo ay borom xam-xam ñu daf si ay ñaan yaa ngi dégg pour jàng mën a am waaye nag du ma génn mukk naan lii mooy xew wala nangam. sëñ bi wax kenn mënu ma ci wax émission bi li ñu war a laaj Mm-hmm. dem naa ñu yenn jaar yi yu bëri yi mm-hmm. ah, mm-hmm. ñëw euh, tey laa gën a mën a garanti gàllaaj bu mu mënti joxe. Mm. parce que man lii naxante dugaluma ci te itam lu wér la lu nga xamante ni dama xam ne lii lu wér la te képp ku nga xamante ni jox naa la sama gàllaaj ak bu mu mënti doon la ma lay moytuloo nga moytu ko. wallahi di nga si gis ndam man amuma lu ma ciy ragal soo si gisul li ma la si wax woo ma na ma sëriñ bi li ma waxoon gisuma ci dara man loolu dawuma loolu. souvent bu ñu mhm. euh, bi sama bopp laa koy njëkkee di ci teg samay moromu sëriñ mooy nañ fexe ñu xoolaat suñu bopp nañ defaraat toogaay yi ñu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax. Euh, jéem a xool soxlaay nit ñi nga xamante ni ñu ngi ñu koy tawatal sonn nañ ku sonn rek mooy tawatal soxla ku am soxla mooy tawatal soxla ku amul soxla du tawatal soxla ñu soo xool soxla yooyu noonu xool nan la ñuy def ba dimbalante ci ak ñoom ndimbalante bu nga xamante ni ndimbalante bu sell lay doon ba am ci ndam ba nga xamante ni gàcce du ci am bu fekkee ne ko am problème la bu ñëwee nañ fexee ñu xool nan lañ ko dimbale ci problème boobu waaye bu ñu ko yokkal problème yokkal problème bi nag bokk na si nga wax lu nga xam te ni gëm na la gëm lu nga xam ne euh, dina courte courte euh, daf nu ne pour am lu mu la jox mu ñëw nga eseg loo ko nga nax ko fekk la nga ko doon wax lépp li nga si jubloon mooy loo am nañ moytu loolu euh, mbiram sëriñ mii ni suñ si bëggee am dara il faut ñu gëstu il faut ñuy laayante biir il faut ñu jël suñu tànk yi jëm ko teg ci njub ak ragal yàlla ak topp sunna gu mat sëkk soxla yi ñu koy ñaan yàlla te itam di ko jaarale ci buntam mi yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa da nga gis ne gàcce mën nañ ko bañ a am suñ ko defee danañ am lañ bëgg te duñ am gàcce te duñ am benn problème ak benn nit ku nga xamante ni mun ñi euh, ñaanloo soxlaam soxla bu nga xamante ni am nañ ci maîtrise muy mën nañ cee ñaan pour mu faju kooku soo la neexee accepteel nga dimbalaan sa nit ki comme ni mu waree maanaam nekkut sa maîtrise moo xam mi faj ak lu mu ci mënti doon. mando mm-hmm. sa soo xamee ku nga xam te ni moom mu ngi yëngu si mbir moom noonu. Mm-hmm. soo ko mën a orienté nga ne ko ah boo mën a woo diw nga woo ko waxtaanee moom wala nangam nangam mm-hmm. su boobaa eh, yow loolu sa responsabilité dégagé wu na si eh, amuloo si maîtrise dégagé wu si parce que xam lépp mu nekk. waaye ne nañ góorgóorlu gëstu ba xam yenn xam-xam yi ba ku ñëw ñu mën a dimbalante ak moom ci loolu loolu daal lay dénk sama bopp di ko dénk képp ku nga xamante ni ab sëriñ yaa ngi woote na ab sëriñ bi jërëjëf Cheikh hmm. Manga dëkk bi am na parfois yenn crédit sëriñ si ñu liñ mën a dimbalante nit ñi rek mooy ku am soxla ñëw ñu tawatal la sa soxla mhm. euh, nga tawatal ko sëriñ bi mhm. sëriñ bi su boppam bu mu ko metti mhm. na xool fi nga jógee ak ñi nga romb na xool tamit taxawaay yi nga xamante ni moom la war a taxawu ba xam waaye nag bu fekkee ne nit ki dafa am problème mm. am na ay jafe-jafe doxee na jógee na lu mel ni ki tëngéej di lijjanti paas di ñëw ba ci yow mm. ba mu ñëwee sax pour mu gis la nekk na problème mm. wala pour mu gis la il faut mu dagg tigee pour gis la kooku noonu boo waxee ne da nga jóg pour dimbale nit da ngay wax lu neex dimbaloo kenn sa bopp ngay dimbale waaw ah, loolu nag man bañu ma ko ma ci mere bañu ma ma ci kii waaye l'essentiel lay wax li nga xamante ni man moom laa gëm mm-hmm. te di ko dénkaane di ko dénk nit ñi mooy nañ ji bàyyi xel nit ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ci ñun suñ leen di bàyyi xel da nga gis ne euh, yàlla dina wàcc yërmandeem ba xaajo bu ñu mëntu tawatal rek mu faju euh, li may tëjee rek mooy maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Saalum euh, di gërëm waaye dëkk bu ma dëkk tamit di lancer appel autorité Sénégal yi dëkk boobu nga xam ne muy Payoma dëkk la bu nga xam ne dëkku cosaan la te am na benn mébét bu nga xamante ne ndaw yi dëkk ba commencé nañ ko muy hôpital. Mm-hmm. hôpital bi nag luñ fekkoon euh, président Abdou Diouf tabaxaloon ni fa. Mm-hmm. Euh, mu demoon ba sooxee ndaw yi dëkk ba nag volonté wu jël seen volontaire bopp ne euh, lii dañ koy taxawal pour dëkk bi. léegi nag am na ay jéego yu mat yu nga xamante daf nañ ko ci ba commencé na macha allah léegi nag li may woo autorité rek mooy nañ gëstu dëkk boobu noonu di Payoma ay ndawam fa ay jaamukati yàlla nga fa. ay ndaw yi bëgg dëkk ba bëgg bëgg Sénégal ñu fa nañ leen gestu ñu xool nan lañ leen di dimbalee bañ mën a am courant bañ mën a am. Euh, yoon yu baax ba ñu mën a am hôpital yi nga yu mucc ayib la ba nga xam ne dootul mën a dem fenn wasalaamaaleykum wa rahmatulah. loolu jërëjëf Cheikh Ibrahima Gaye bokk xarit yi yéen ñi nga a soxla Cheikh Ibrahima ko jot ci numéro téléphone yooyu ngeen di seen muy ak xeetu baaru écran bi ñun mhm. lépp nga xamante ni ku disponible yi rek ko tax a jóg mhm. mhm. yi eh, bàyyi la fii ngay jëflante askan bi yàlla di ci may ndam bu baax a baax jërëjëf